bul yaakaar ku dul moom bul sukkandikoo lu dul ci moom bul ragal ku dul moom mi ngi noonu jalla waala xamay leen nit ne yónni na ab jaamam di ab yenentam sunu yenent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ñu war a jël mu dox suñu digganteeg jàngal ñu naka la ñuy jaamu yàlla bul jaamu yàlla dara lu doon loo xam ne ay tegtal rot na ca ne yenenti boobu sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale gannaaw loolu mbokk julit sunu xutbab tey bii xam nañ ni sunu doom yépp ñi ngi nekk ci ay vacances loolu itamit euh, doon loo xam ni woy juri war nañoo gën a bàyyiwaat xel ci ñoom mbokk nañu xam ne doom suñu borom yàlla subhanahu wa taala da koo def muy bokk ci xéewal yi gën a màgg looloo tax mu daay di islam santaane xoolal fan nga koy wute yow góor heure boo jógee di wut soxna bàyyil xel doom ya ngi cay am yow soxna heure boo xamee ne góor a ngi lay bëgg si bàyyil xel doom ya ngi cay am ngalawaay góor ak jigéen ku nekk ci ñoom na sàkkoo borom diine na sàkkoo boroom jukko ju rafet loolu lañ yaakaare njaboot gu baax gu barkeel leneen lu dul loolu day jeex bu dee taar ba su ngeen see un gisatoo ko alal mën na soppeeku lépp mën na soppeeku amma ki yàlla may diine ak jukko ju rafet muy góor ak jigéen loole da gis ne moy le gëna mag ci li ñuy yaakaari réussite moom la borom bi jàll wa ala di wax ni fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil xaybi bima xafiza allah tagg jigéen ñu tedd ñu baax ñooñi nangul yàlla nangul seeni borom kër wattu seen bopp wattul seen borom kër suñ borom yàlla ñooñu la tagg mbokk julit julit bokk na ci ay melokaanam muy ñaan yàlla may ko njaboot gu baax ibrahima alayhi salaatu wassalaam keroog ba muy gàddaay ca moo jëkk a gàddaay ci kaw suuf bàyyi baayam bàyyi dëkkam bokk na lam jëkk a wax may rabbi habli min as ay yàlla yàlla nag ma may ci doom yu baax yi moo tax suñu borom yàlla tegeelal ko may ko ñaari yonent ñu ay doomam may ko ay sëtam yépp mboolem yonent bu juddooti ci ay sëtam la bokk sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noonu it la suñu boroom teggee ñii di ibaadu rahmaan muy jaamam yi nga xam ne ñoo ko déggal ca nar a dëkk aljanna yàlla na yàlla boolu ñu ca suñu boroom yàlla subhanahu wa nee na dañuy ñaan yàlla fu ñu mën a toll e yàlla yàlla na ñu may suñu soxna yi ak suñu boroom kër yi ak sunu njaboot gi suñu xol sedd ci ñoom mbokk julit lay seral xolu ju xolu xol lay seral xolu julit ci njabootam mooy mu gis na njaboot gaa ngi ko topp ci jaamu yàlla amma njaboot goo xam ne ay ministre lañu ak i généraux sàggane seen diini loolu du seral mukk xolub julit kon loolu looy ñaan la ibrahima ñaanoon rabbana ijal ijal ijalna muslimin lak ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إبراهيم بكن لم يانون سنبرم نتري ننكو يالا يالنا ندفل ما سنن جبر جب نجبل الله تيالا يالنا نحمل سنو ديني لولي دي responsabilité بو خمني بيب وي ورنا فخي خم ديني يالا جي وايه فخي جبوتم خم ديني يالا جي moo taxon ibrahima ne wa arina manasikana yàlla yal nañ ñu woon naka lañ lay jaamo waaye yit gannaa ba nga baal ñu la nga xamee ñi ni mooy suñu rëcc rëcc mbokk nañu xam ni ittiwoo suñu njaboot loole dafa bokk ci jihaad yi gën a màgg ci jihaad yi moo tax ab julit war caa góor góor lu war caa muñ lu waral loolu xamal ni bis boo faatoo amul looy bàyyi gannaaw ci kaw suuf lu gën ay doom yu baax yu lay ñaanal bàyyi fi ay trésor ay tool bàyyi fi lu la neex waaye xamal ni doomu aadama bàyyiwul gannaawam doom yu baax yu koy ñaanal <clears throat> doom yu bokkaaliwul ak yàlla dara doom yi tënku ci sunna nekk di la ñaanal bàyyiwoo lu gën lool waaye xamalit bàyyiloo say doom lu gën yar leen yar bu baax ngalla waay tabaxal leen ay immeuble bàyyi leen ay compte bancaire nañu fexe ba nekk des architectes et des médecins loolu lu baax la waaye xamal ne amul lenn lu gën a baax amul lu dul lu gën a féete kaw njaboot googu nga xamal leen seen boroom jàngal leen seen diine teete leen yar leen ci ba ñu tàggatu ci bàyyi bàyyiwulul njabootam yaay bàyyiwulul njabootam lu ëpp doole loolu loolu nag mbokk moo tax du mbir bu yomb daa laaj la nga xamee ni ni muy ak muñ waaye nañu xam ni <clears throat> mujj gu rafet day ka nga xamee ne moo koy yor mooy ñaragal ragal yàlla su ko defee yaay xam ne doo bàyyi rek kay yar ñoom ñaar ñépp ñoo war a yar rawatina yow yaay doom yi jigéen yi la yàlla wërsëgal bàyyil xel seen diini bàyyil xel seenu colin bàyyil xel seeni àndandoo bàyyil xel seeni xalaat lu mel noonu it lañuy sant bàyyi ci nan lay fexe ba njabootam mu def leen ñu nekk ay góor ñu dëgër ñoo amal njëriñu société bi xam seen borom waaye xam seen diini di leen fuglu fu ñu mën a tollu <clears throat> loolu nag mbokk boo gisee tey li ëpp ci famille yi dañ koo ñàkk <clears throat> bàyyi yu bari tey daw ci gannaaw alal tax na ba xamuñu lu xew seen njaboot bàyyi yu bëri tey xalaatatuñu toog ak seen njaboot xamuñu ci li ñuy xëy xamuñu li ñuy gont noonu la dale yaay yu bëri ba doom yi tey dañu doon njaboot gu ñu abandoni ña ca jàpp ne tane nañu mooy ñu jël yóbbu ca jardin yaag daara yaag bàyyi leen foofu mbokk déedéet nañu xam ne yow bàyyi da nga am responsabilité bu la yàlla di laaj ëllëg soxna si it am ko xale yooyee dañ leen war a jàngal lan moy ay wayjur aqi wayjur ndax ñom ëlëk dañoo wara nek ay wayjur loolee la ci bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñu wax ni képp ci yéen sàmm la ci ëllëgi ki sibir yàlla subhanahu wa taala dalay laaj la nga xamne mom la doon sàmmloo loolu ñu bàyyi ci xel bu baax yar dom du alal rek koy def dugal ci ay école wala dugal ci ay jardin wala dugal ci ay daara dedet yar doom alal la waaye effort la boo xam ne da koy def lënkale ko ak la nga xame ne nii moom mooy seeni ñaan bokk comme ni ngeen bokk xam ak a jafe woon jamono yu njëkk ya <clears throat> waaye ak a gën a tar suñu jamono yi tey jamono jii nga xam ni mbokk mbon moo not lu baax fa lilahi alhamdu suñu maam yi jamono bi ñu doon dund lu bon ay benn benn la woon lu baax mooy li notoon sun jamonoy tey inverse bi moo am lu bon mooy li not lu baax mooy li mooy li néew ba bu yàggul dara boroom kër bu nekk mënoon naa tënk njabootam kër gi kenn di fi jóge di dem sabar kenn di fi jóge di dem ay tànn biir kenn di fi jóge di dem ay théâtre wala cinéma daa di aar sa njaboot ba ñu ràññee nga bàyyi leen ñu dem waaye mbokk julit tey jii bi ñu yàlla nattoo la nga xamee ne mooy portable nattoo ñu la nga xam ne wifi ak internet tey jii suñu doom yi ñi ngi teg seen tànk fii ci réew mi waaye seen bopp ma nga amérique la ñu xam amérique américain yi xamuñu ko la ñu xam europe européen yi xamuñu ko loolee mbokk booleeg yàlla tàggat ay yàqkat yoo xam ni ñi nekk ci gannaaw internet boobee des ingénieurs des experts fexe ba nu ñuy dévier xolu doomu aadama yi ba def leen leen la nga xam ne mooy tubaab yàq seeni jikko comme ni ko yàlla waxee waddu law takfuruuna kama kafaru fa takunuuna sawa ñi ngi bëgg ngeen yàqu ni ñuy ni yàq ni ñoom ni ñu yàqoo ba ngeen yem loolu nag moo tax ba nañu gën a góorgóorlu waat di wax ak njaboot gi te leen yee sa doom bi jigéen bi jàll sa gannaaw sangoo mbàjjam léeg-léeg jëmb bu ma nga fa nekk waaye xel maa ngi feneen wax jaa ngi feneen ba léeg-léeg jëmmam jooju sax mi ngi feneen tëj seeni néeg ubbi seeni portable def yaramu neen di jokkoo ak ñu leen neex ci àdduna bi yii mbokk dañ cee war a yar njaboot gi bàyyi leen ci xel bu dul looloo am na étape boo xam ne ni buñ la ci rëccee dootoo leen mën a dab bay la yomit mbokk njaboot trésor la bu yàlla subhanahu wa taala di defal doomu aadama borom bi mu ne wallahu jaala lakum min anfusikum azwaja wa jaala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minun wa bi ni'mati llahi hum yakfurun maa leen may ci sen soxna yi ay dom ak seut sët wërsëgal leen lu gën di dunde ndax di gën di gëm batil di weddi xéewalu yàlla mbokk yàlla mu ñu may soxna yi ak doom yi moo ci wàcce benn programme daa ji ne buñ jaaree fii day daan ñekk ñeel yiwu àdduna yiwu àllaaxira amma bu dee programme boobu dévié nañ ko borom bi moom lay wax ni fala tujibuka amwaluhum wala awlaaduhum innama yuridu llahu li yuazibahum biha fi lxayati dunya képp koo xam ne sa njaboot teegawul ca fi neex yàlla mbokk njaboot googu fitna rek lañ mën a am ci moom même boo gisee ci zahir yaa xamul waaye xaritam bu waxtaan ak moom day xam ne njabootam gi fitna la maadaama tegewuñu fi neex yàlla loolu kon ñu war a bàyyiwaat xel suñu borom yàlla heure boo xamee ne nii mi ngi ñuy jox ay doom doom yooyee da koy raxas ba mu set wecc amul benn doom buy judd waale mbon kuy judd yaa ngi judd ci fitra ci déggal yàlla ci nangul yàlla amma way jur yi ñooy saggan ba mu dévier nekk yéeféer majus nasara noonu la ko yonent yàlla bi waxe benn waay dana ne waaw yàlla daal mooy dogal ak njub nit ñu baax ñaa ngi fi am doom yu bon nit ñu bon ñaa fi am doom yu baax na am loolu dëgg la yonent yàlla nu wati ne junni at yàlla may ko doom bu bon mi ngi noonu yéeféer yi gënoon a bon ki gënoon a sonal alayhi salatu wasalaam di abu jahal ca makka doomam ji ikrama mi nga xam ne kenn xamul nan la sanale woon jullit ñi ci lislaam la mujj shahid waaye ndax loolu yow sa sa wàll la déedéet mbokku jullit ñun ñépp war a gëm dogali yàlla waaye yow da nga am responsabilité bu la yàlla di laaj ëllëg yowmal qiyaama yàlla du la taxawal yowmal qiyaama ne la lu tax sa doom yi baaxuñu yàlla du la taxawal yowmal qiyaama ne la lu tax sa doom yi ñu bon waaye yàlla danga la taxawal yowmal qiyaama laaj la ndax sabab lu woon nga teg sa doom yi ci yo yo yoonu njub yoonu ngërëm ndax sàggane woon nga say doom waa ja nga xamee ni nii la ko yàlla santoon ci njabootam def na ko kemtalaali kattanam njaboot googu dévier te bu demee dana daje ngërëmal yàlla waajee sàggane njabootam wala tegoon loon ci yéenu réer ci aka bari ay parents yooyu woo seen njaboot ci shirk ci ay bidaa njaboot googu fippu mbokk ko mel noonee mbaax nga njaboot gi baax du tey suñu borom yàlla mbugal ko yowmal qiyaama kon ngal la waaye yàlla sant ñu ñu baaxal njaboot gi waaye yàlla dañoo sant ñu sabab lu tegi njaboot gi ci yoonu baax ngiree ñoom ñëpp ñu baax loolee bokk na la ci gën a mat lañu suñu borom yàlla nettali ibrahim alayhi salatu wasalaam bokk na lu lu mu ñaan yàlla rabbi jalni muqima salaati wa min zurriyati yàlla yàlla nag ma wërsëgal may taxawal julli yàlla na nga ko wërsëgal sama njaboot doom jëm jëkk am mooy ismail yàlla def ko yonent suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne kaana ya'muru ahlahu bi salaati wa zakat mi ngi noonu wa mi ngi noonu kaana inda rabbihi mardiya ismaila dafa saxoon di digal njabootam ci ñuy julli da génn zakat yàlla mayeen ko ngërëmam loolin moo tax ba ngalla waay seen njaboot yi fexe leen ñu miin néegu borom bi ay góor wala ay jigéen fexe leen ñuy miin néegu yàlla fexe leen ñuy taxawal julli ñu xamal leen nu ñuy laabe fexe leen ba waxtu du romb mukk ci julli woñu la mu méngool ci sutural seen awra ca jigéen ñi nga xaar ci sa tànku tubéy lii day mbokk dangay gis ni bokk na yoon ba gën a màgg ba yonent yi jaaroon ba baaxal ci seenu njaboot loolu it da ngay gis ni amul kenn incha allah ku ci jaar lu dul yàlla du neenal la nga xame ni nii moom mooy ay jëfam mbokk njaboot gi mi ngi nii dañoo war a góor góorgóorlu xamal leen seen boroom xemmim loo leen aljana ragal loo leen sawara xale bi warulaa ragal yàlla la war a ragal xale bi dafa war a sukkandiku ci yàlla xam ne yàllaa ko bind yàllaa ko yor yow bàyyi boo xëyoon dee moom day continuer dund mën nam sax mu dund dund gu gën a neex sa gannaaw nga gëmloo ko boroomam sàmmloo ko digganteem ak boroomam waye xemmem lako al janna xam le ko loy wut ci kaw suuf ci ay diplôme loy wut ci kaw suuf ci ay pal fexe ba dem al janna lolu moy le gën ci yow sun yenen ta ali sallatu wassalam ne jurom ñaare ngi yàlla di len keral ci keru arsh heure buy àcc ay jaamam ña nga xamne senu ndaw lañ commencé won di jaamu yàlla waye naka noonu itamit ñu ragal lo ndaw li la nga xamne moy sawara suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu qu anfusakum وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون xale bi ragal sawara xam ne man kat su ma demee ci njaaloo gi mën na ma yóbbu sawara su ma lekkee riba bi mën na ma yóbbu sawara su ma demee agressé rey fa nit mën na ma yóbbu sawara ragal loo ko sawara xemmem loo ko aljanna loole da ngay gis ne bokk na loo xam ne nii lu lay gën a mën a jàppale ca la nga xamé ni moy yar njabot goge, mbok julit njabot dañ leena wara tété a ba ñuy majeur gannaaw ba nag ñu and ak ñoom ca la nga xamé ni mom moy ay conseil yo xamé duñu dëkk duñu dañ di leen ko jox suñu borom yalla mo netti ba li ñu yonenti yalla yanquub jamono bi nga xamé ni mom lay faatu fukk doom ak ñaar la amone fukkeelu doom ba ak benn mooy yonent yàlla yuusuf nekkoon yonent boo xam ne moo ah, ah, ci yonent yi gën a màgg la bokk waaye suñu borom nee na yanquuba de ba mu nekkee ca lalu de mi ngi dajala njabootam naan leen ay sama njaboot lan ngeen di jaamu sama gannaaw ñu ne ko bàyyi na sa xel dal du ñu jaamu lu yàlla bi nga xam ne nii mooy sa ki ngay yaakaar mooy yàlla bi sa baay Ibrahima doon jaamu yàlla bi sa baay ismaayil ak isxaq doon jaamu yàlla ñun yàlla moomu dong lañ fas yéene jaamu ci duñ ko bokkaale dara mbokk loolu mooy ñaari mbirim ñu jàngal la nga war a gën a insister ci sa njaboot fexeel ñu wéetal yàlla ñi ngi dund ci jamono ju dangereux jamonoy télévision yi internet nit ñi guddeeg bëccëg luy màbb pas-pas la ñuy wax luy yàq pas-pas la ñuy wax fàtteloo nit ñi seen borom jalla wa ala fàtteloo leen yonenti yàlla gëmloo leen ay doomu aadama ay xarafa fuufa ay xabaar yoo xam ne tegewul ci dara njaboot gi nga xam ne dañuy màng ci loolu ca sàmmuñu leen mu ngi mel ne rek sàmm bi jiitaloon ak juróom dem ca àll ba jur gaa ngi fees ak gaynde ak i till moom mu dem jaaxaan ca taatu garab ga di nelaw mën na balaa yow lépp a jeex loolu nañuy toog ak njaboot gi di xamal lii ngeen dégg ci rajo yi di ko gis ci réseaux sociaux yi ay tappale la ay yàq la bu leen ko gëm gëm leen yàlla bu leen ko bokkaleeg dara kenn mënu leen a jëriñ ku dul yàlla kenn mu leen lor ku dul yàlla bari na kuñ fi jàpp mooy régler problème adduna ak alaxira yàlla moo xam lu muy def ak moom yowmal qiyaama xamuñu sax ndax moom àddina la jëm maa nag doomu aadama yëpp war ko yaakaar lii mbokk mooy la nga xamee ni nii bàyyi bu nekk ak yaay bu nekk ca la war a gën a insister fexe ba njabootam doon ay jaami yàlla ndax yàlla loolu dong nga taxoon mu indi leen ci kaw suuf yàlla indi wuñ fi ngir dara lu dul wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa li yabudun ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yutimun inna allahu huwa razaq suñu borom yàlla mu ne li tax ma indi leen ci kaw suuf mooy ngeen jaamu ma soxlaalu ma ngeen may leel man maa gàddu seen wërsëg wërsëg nekkul ci ay diplôme wërsëg nekkul ci masamba wala nekk ci mademba amul kenn ku lay wërsëgal du abubakar du omar du jibril alayhi salam du muhammad sallallahu alayhi wasallam amul kenn ku yor sa njëriñ àdduna ak njëriñ alaxira borom bi mu ne allahu huwa razzaq zul quwwati matin mom dong may wërsëgal wa aduna may wërsegal wa alakhira may borom katan gi nga xamne dara tewu ko jalla wa ala mbokk li day ab teunk la bu ndaw boo xamee ni nii jàpp nañ ne képp ku ko jë jëfandikoo sa njaboot boole koog ñaan ya nga xam ne moom la ñu ubbeeku insha allah yàlla dana la may sa xol sedd ci ñoom àdduna sedd ci ñoom allaxira te xamal ni njaboot googu boo fexee ba ñu doon ay jaamu yàlla comme ni nga nekk jaamu yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ni walazina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imanin alxaqna bihim zurriyatahum ña nga xam ne gëm nañu tege ci njub fexe ba seen njaboot topp leen yowmal qiyaama danaa leen dajale ca garaat ya gën a kawe ci aj ci àjjana mbokk loolu mooy réussite sa doom fexoon ba tabaxal la pale almati sa doom fexe ba yóbbu la fu la neex ci ay ay waruwaay xamal ni la gën a am solo yow bàyyi wala yow gën a solo yow yow yaay yéeg njaboot gi ngeen fexe jaamu yàlla ba ëllëg ci si biir yàlla xool ki gën a kawe daraja ci njaboot gi na doon bàyyi bala yaay jala doom jala suñu borom jël leen yéen ñépp yóbbu leen ca daraja yu gën a kawe yooyee ngeen nekk fa sax fa xaalidina fiha abadan ci nguur goo xam ne du jeex ba faw يالنا يالا بولو ني تي جامام يمي تابال الجنه يالنا يالا بولو ني تي جامام يمي جيل سين نجابوت يوبولين ني دك نيوم تي ادنا يي كاويا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين